Thank you. mbokki Sénégal mbokki keeskaay benn dëkk ñaari gaar déglu leen ma xibaar leen waa GFN waaw waaw waa GFN ñëw na ànd ak doole nee naa la tubarkal la moo boole jom ja waaye boole fulla ja boole ngor ga da nga am cérémonie officielle la moo xam dîner de gala la wala mariage la wala ngénte la wuñ sax tànn béer bëgg ñu décorer la ko ba muy nes nes yi dawal gaaw seeti leen tubarkal la ndax ñoo ci mën da nga bëgg son et lumière maasiwuñ ceeg benn xale jamono da nga bëgg sonorisation bu baax neex lool ba fu waay toll naan acum dawal